bal blanc est-ce que loolu itam euh, bu ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, àndandoo yi Ousmane Sonko war nañu ci mën a porter plainte pour vraiment identifier euh, quand même ñi nga xam ne ñoom ñoo def lu ñu parce que mbir yi ñaaw na wala kon ëpp na ba nga xam ni fa la fa la ëpp yam quand mën nañu porter plainte parce que du yoon comme ni Pape Matar ak Mame Birame Wathie war a porter ci oto boo xam ne identifier nañ ko mu nekk oto établissement public mais lu weesu plainte boobu mhm. ku nekk ci citoyen moo war a fagaru jóg ci boppam parce que ñii pare nañu pour comme ni ko député bi waxee mhm. marché sur nos pour se maintenir au pouvoir nguur gi daf leen jaral lu nekk te am nañu ay partenaires yoo xam ne dañ leen ci jàppale léegi nag nee naa askan mhm. askanu lëm mhm. kenn mënu ko noonu na ku nekk waajal boppam parce que nu sommes tous menacés na ku nekk jël boppam en charge parce que nous sommes tous menacés man naa jël samay disposition noonu laa koy digal digalee ñëpp parce que man du ma fi nekk di xoole ñu may dóor ay balde du may suul yi non bu yeboo ñu jàpp ma yóbbu ma kaso waaye duñ ma yóbbu cimetière kon balaa blanc bal réel moo ci yem parce que booy bi deewoon bi ñoo na bal réel lañ ko dóor ñi dee Ziguinchor bal réel lañ leen dóor bal lañ leen dóor te tey jii Euh, je crois que comme ni mu ko waxee. Euh, bés dina ñëw. askan bi nangu li mu moom parce que askan bi ku falu ñoo la fal tey génnee nañu décret fixé datu élection yi donc respect du calendrier républicain parce que démb ci Walfadjri maa ngi doon tawat loolu tey ñëw génnee décret bi kooku muy une première bonne chose mais nañu jël beneen décret. ubbi révision des listes révision ordinaire des listes comme nee nañu exceptionnel bi ordinaire bee ko emporté maanaam loi bi communiqué bi moo ko emporté nañu rétablir la légalité ñu tijji liste yi xale yi bindu 2024 ñu war a déposer déposer Macky Sall warul déposé déposer du déposer mu jeex loolu moo mën a am jàmm am léegi ñoom pour pourquoi mu jaral leen seen bakken lu bëri la parce que càcc gu bëri ci dëkk bi bi ci dëkk bi te ñu am ci ay dossiers yu leer yuy téye te ñoom duñ ci mucc parce que lu leer la du sax lu ñuy enquête dafa am loo xam ne dañ koo dañ koo téye ba pare loolu ñoom ñëpp seen kaso mu ngi ci ba noppi mm-hmm. seen seen seen puukare seen nguur seen noos dafay jeex xam nga ko am ay oto yu jar ay cent millions ay villas yu jar un milliard ñu nga war a bàyyi loolu yëpp dugg ci benn cellule ngay am ay heure de cours ak yooyu Macky Sall da na dee moo ko gënal ñàkk nguur nguur boo ko déggee mooy puukarewu boobu am na ñoo xam ni pour rien au monde duñ fi bàyyi seen immeuble yi ñu tabax bu am na ñoo xam ne seen immeuble fii la nekk nag Dakar bii ñu tabax ba ba doyal nag foog ñu ñoo fi nekk ba deux mille trente cinq comme ñu ko planifié. Mhm. askanu Sénégal dul nangu loolu. suñu 1000 milliards yi ñuy sàcc woo xale yi société civile naan leen li ñu sàcc matul 1 pour cent matul sax 7 milliards loolu déjà euh, dafa dafa révulsant sans compter nag am na loo xam ne euh, liggéey bu ma leen di waaj tegal. Mhm. loo xam ne bu génnee ah. Mhm. Sénégalais yu bëri seen xol dina jeex. dina jeex parce que ñu ngi fiy def loo xam ne ñun dañ leen a jàpp ba pare te wàccaguñu te ñoom xam nañu dañ leen a jàpp ba pare parce que yàgg ngeen yàgg ngeen ma dégg ma fay na dix millions de dollars ci signature décret président de la république ni ko boo signé décret probation contrat bi ma dugal dix millions de dollars te loolu gerte gënu ko nekk dara gënu ko nekk gert loolu cinq milliards la toll woon ci jamono jooju ci suñu signature président ñu ay tubaab di ci fay xaalis te loolu. figuré wul ci benn contrat amaatul ci benn contrat musul am benn yoon la am te ci Macky Sall la am te ñemewu ko defaat ca la ñu suñu destu géej yëpp tubaab bi. ci dossier Mame Mbaye bi keroog lan laa fi wax Sénégal jaay na suñu 10 pour cent or d' actifs supplémentaires yi ñu waroon am ba abadan jaay ko encore 10 million de dollars ñoom som boobu bëgg nañ ko lool effectivement parce que li nga waxoon keroog ci dossier Prodac bi ba noppi mhm. dugal ko domaine agricole communautaire bu Itato ci vingt neuf milliards yi seey la bokk parce que affectation directe la ñu def parce que toute recette et toute dépense doivent être obligatoirement inscrites au budget dafa am lu ñuy wax règle et principe d'uni euh, euh, budgétaire daf ci bokk principe d'universalité loo xam ne àddina wërngal këpp ñoo ko bokk àddina wërngal këpp seen budget décembre lañ koy clôturer décembre ba décembre année budgétaire bi décembre lay yem sinon du ñu mën a harmoniser seen jëflante ci wàllu xaalis ak économie mm-hmm. loolu lu ñu dëppoo la ci àddina bi unicité de caisse lu ñu dëppoo ci àddina bi mais bokk na ci principe d'universalité bi itam. Mhm. principe de non affectation. c'est-à-dire doo jël benn somme rek affecté ko direct ci ci lenn te duggul ci budget bi te budget bi dafa war a am un caractère analytique. Mhm. maanaam dafa war a faram fàccu. dërëm bu nekk fu mu jógee dañ koy bind. Mhm. fa mu jëm dañ koy bind maanaam dix milliards yooyu. di dix dix euh, de dollars yooyu. dafa waroon duggu ci budget bi buñ koy affecté Prodac. ñu wax dix millions yooyu fu mu dix millions de dollars yooyu fu mu jóge maanaam cinq milliards yooyu fu mu jóge mhm. buñ koy bu ci nekk ñu wax ni fii la jëm bu fekkee war a def quatre-vingt-deux bassins de pisciculture te loolu projet bi mhm. ñu ni yi bassin bu nekk lii ak lii ak lii lay laaj ci matériel lii ak lii ak lii a ngi nii mhm. bu fekkee a aménager ay périmètres nangami hectares pour production de ton mille tonnes de maïs te loolu moo nekkoon projet Itato cent mille ton la ñu waroon produire mënuñu woon mënuñu sax produire trois mille tonnes quatre-vingt-deux bassins de pisciculture la ñu waroon réaliser mënuñu sax réaliser trente ak matériel yi ñu waroon a jënd loolu yëpp dañ ko waroon bind benn par benn benn loolu mooy aspect analytique maanaam lu faram fàccu lu mhm. Mhm. parce que xaalisu nguur doo ko joxe nii rek gëm dafa am fu mu war dugg dafa am ay rubrique yu ñu war a bind mhm. kon loolu kese affectation direct ba kese sàcc la moo tax ma sañ koo wax rawatina nag ba mu duggee domaine agricole communautaire yu Itato mu seey kon loolu hmm. nit bu koy wax dafa am firnde kon ñii dañ leen jàpp ba pare te wàccaguñu muy Macky Sall ba ci ba ci ñi ci suuf parce que moom moo fi indi huit milliards ni dañ ko koo may te may ñu ko xaalisu ArcelorMittal bi soixante dix milliards yooyu nga xam ne ñun bi ñu yëkkatee coow bi lañ ko dugal en trois lois de finance euh, benn rectificatif rectificative ak ñaari ordinaire ci ñetti année yu toftaloo la ñu dugal xaalis boobu par ay vingt cinq milliards ak quarante cinq milliards cinq milliards. ba noppi dañ cee tëq vingt milliards dañ cee tëq vingt milliards yoo xam ne nee nañu dañ ko dugal ci construction wu université Cheikh al Islam Ibrahima Niass te université boobu pareegul ba léegi te ci biir foofu. bëri na lu bëri yu am ci passation de marché bi parce que benn sénégalais bu lëkkaloog benn américain ñoo ko gagné marché bi ba ba ba comme war commencé liggéey bi ñu rocc ko ci ñoom jox ko ay chinois yoo xam ni dañu lëkkaloog ay nit ñu nekk fii ci présidence donc léegi loolu ay dossiers yu mel noonu dafa bëri oto ministre yi lu jaral lijjanti la. seen oto yi ñoom. seen mu mhm. nekk ngi ci gannaaw donc ñoom dañuy def lu flagrant comme li ñu def lu flagrant tey nguur gi seen bakken lañ ci teg ba noppi département d'état américain. Euh, ci rapport am bi mujj rendre na leen responsable ci morts yi am en deux mille vingt et un blessés yi am en deux mille vingt et un mm-hmm. dañu ni ces exécutions sont du fait du ont été commises mm-hmm. par le gouvernement ou en son nom mm-hmm. par le gouvernement ou en rapport du département d'État tey jii ñoom bu ñu wàccoon nga foog ni duñ leen woo benn par benn tëj leen ci kaso bi OFNAC 73 rapport la bàyyi Seynou Ndiaye Diakhaté moo ko wax Bassirou Gueye avec ordre poursuite te maa ngi fàttali toujours ni rapport du concerné benn nit rek rapport Cour des comptes bi ñaata nit la concerné ministre yi kese kese kese mët nañu diis sans compter ñeneen ñi DAGE yeeg ñeen yeneen fonctionnaire yi ak ñi gagné marché yeeg yooyu léegi imagine 73 rapports mhm. kon ñoom xam nañu lu tax ñu mooy léegi nag ñun tamit dañu toog ci buntu naataange parce que Sénégal li muy dund dafa metti te mën naa neex te dafa a neex parce que am nañu ay ressources am nañu xaalis boo xam ne bu ñu neexee dugal 47 milliards ci réfection building administrative yi nga xam ne dafa jàkkaarloog palais bi ñuy defee conseil des ministres dem ba jam ñaajo tabax fa ñaari sphère ministérielle yoo xam ne dañ cay fay location vente à plus de 100 euh, euh, donc loolu loolu day wane ni Sénégal am na xaalis boo xam ni war na ko def ci ay farata mi yi ni ko saax-saaxee fonds wu inondation yi set cent et quelques milliards tey ji Macky Sall ni mais Macky daf daf daf ñu yëpp mu ni day jël lu ëpp sept cent cinquante milliards ci suñu budget pour subventionner produits pétroliers yi ak plus de quatre cent cinquante milliards suñu budget pour subventionner électricité ak carburant ba noppi ci ëllëg sa xaw ma gannaaw ëllëg sa mu yokk gasoil cent franc yokk essence cent franc yokk gaz yokk courant kan la yëpp léegi loolu ñu teq suñu budget fan lay dugg ni subvention boobu subvention kay dafa war a jur bees mhm. mais nga nga da nga jël suñu xaalis pour subvention ba noppi mbir yi yokk donc loolu mënuñu ko justifier léegi nag opposition am na quand même quatre-vingts yoo xam ne mhm. war nañu demander compte war nañu def ay commission d'enquête parlementaire pour teg état bi devant ses war waruñu xaar ba mag yi jóge fi dañu war a taxawal ay commission euh, d'enquête parlementaire loolu cinq sañu député am nañu ko même quatre-vingts députés à l'opposition war nañu mën a leeral ay dossiers war nañu mën a taxawal haute cour de justice ñi nga xam ne dañoo takk ci affaire mille milliards yëpp ñu laaj ñu woo leen interpeller leen mettre leen devant les responsabilités opposition bi ñu am tollootul ci jooytu ak ñaxtu dafa am pouvoir législatif pouvoir législatif moo ko may mu samp tribunal bu ñuy wax haute cour de justice bi àtte ministre ak président kon liggéey bi léegi léegi la du balaa muy dem. balaa muy dem kon euh, euh, fi mu nekk nii. Mhm. Euh, lépp la ñu war a defandoor duñ ko benn bennal duñu xaar ba waaj jóge fi parce que am nañu jumtuwaay yoo xam ni mën nañu lu ñutu maanaam commission d'enquête parlementaire. Mhm. mën nañu àtte haute cour par exemple lu mel ni haute cour de justice. kon fi mu nekk nii. Mhm. amatuñu opposition buy revendiquer dañu war a am opposition buy exercer pouvoir législatif am pour régler problème yi nga xam ni moom la ko askan bi fale d' accord d' accord pour régler régler problème yi nga xam ni ba tey yéen a ngi seen émission bi di face à l' actualité yéen ñu ñuy seetaan bu kii internet di 313 digital di leen fàtte rek bu leen fàtte di abonné ah, partagé te itam ba si cloche de notification bi ndax ngeen di mën a wéy di ànd ak ñun suñu ay ah, programme su ko defee ñu ah, continuer li nga xam ni moom moo di bile émission ak moom mi la di Clédor Sène njiital mouvement Claire Vision gindi askan wi encore une fois ci bile ñuy euh, poursuivre rek parce que parce que tey jii ba tey ci analyse yi euh, fële ca euh, tribunal palais de justice gis nañu ci biir foofu noonu ñi nga xam ñooy avocat Ousmane Sonko témoins yi nga xam ni de à décharge la ñu parquet bi dafa lànkoon ni du ñu leen bàyyi ñu yëg kon ci ñëw ci bile mbir maanaam yëkkal seen ay kàddu ba pare ci juge bi itam ni Euh, dafay euh, kon euh, sax ci li nga xam ni dafa bëgg a àtte daar daar tey ji maanaam tey ji la bëggoon a àtte li nga xam ni moom moo di bile bile dossier te boobule jamono ñu gis ni ñoom dañu ko jàppi dossier boo xamante ni si ni ñoom renvoyé nañ beneen dossier bu nu mel bëggoon a àtte bu nu mel après gis nañu avocat yi Ousmane Sonko yi quand même opposé wu ci loolu ba gis nañ ñu mujj nañu ko renvoyé loolu itam Euh, ci euh, jàngat analyse ndax avocat Ousmane Sonko yi dañu am euh, ndam ci loolu ba pare ak ñi nga xam ni juge bi li mu bëggoon a def effectivement bëgg ni dafa àtte bëgg ni dafa bëgg àtte effectivement dossier bi tey tey tey jii nii. waaw xam na ñoom dañu am seen calendrier. Mhm. mais ci jugement dafa am lu jiitu lu ñuy wax bataille de procédure. Mhm. maître Ciré Clédor li mhm. c'est le meilleur procédurier du Sénégal. procédure rek la xam. donc boo amee des témoins à décharge. Mhm. parce que Amadou Ba ñëpp dégg nañu déclaration défense bi demandé woon na projeté benn vidéo ñu bañal ko ko. le mhm. parquet se aussi opposé à ça. effectivement juge bi bëggoon taf tafee affaire bi parce que ñoom bëgg nañu obtenir une invalidation de la candidature de de Ousmane mhm. parce que xam nañu diffamation bi doyul ñu jokk ci injure publique injure publique lan mooy injure fan ngeen déggee Ousmane Sonko saaga publiquement xanaa du gatsa gatsa bi la ñuy wax injustice publique parce que loolu c'est œil pour œil dent pour dent. Mm-hmm. alors boole ci euh, faux usage de faux en document administratif. Mm-hmm. Euh, ñaar yooyu procureur moo ko ci boole. procureur boobu mooy parquet rek parquet bi ngay wax. Mm-hmm. moo opposé wu à ce ñu déglu ñoom Amadou Ba ak ak euh, ñoom Birahim Seck les témoins à décharge parquet boobu moom moo yokk. ñaari chef d'inculpation boobu mooy nguur rek parquet mooy loxol nguur parquet mooy ndawal nguur ci yoon ni yoon di doxee parce que ñoom ñooy les maîtres des poursuites mm-hmm. kon tey jii affaire bi nekkatul diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko rek mm-hmm. ni mu demee tey wane na ko mm-hmm. euh, mais diggante nguur gi la ak Ousmane Sonko parquet mooy nguur parquet mooy opposé wu Mame Mbaye am na ay avocat pourquoi avocat Mame Mbaye yi def def ñu opposition xam nga nguur gi mooy opposé wu mooy mooy joxoñ direction léegi nag avocat de la défense yi li ñu am mooy procédure parce que ñoom seen avantage la ñu nangu projeté fi Amadou Ba doon évoqué rapport IGF hmm. ay vidéo yoo xam ne Mambay Niang nee na ci rapport am na lu tax ñuy bañ parce que tey ji man boo mu tuumaalee tout élément de preuve ma am pour teg ko ci table bi war nga ma permettre ma teg ko ci table bi su ma amee vidéo bu Mbaye Niang naan rapport am na léegi man lu ñu may laajee rapport Mbaye Niang mi ne rapport am na nañ ko ni ban rapport na ko génnee Amadou Ba même chose mais Amadou Ba on se contente pas de projeter euh, sa vidéo mais de de de de de le confondre par rapport à ses déclarations parce que mënul wanaasu lu mu wax loo wax ci vidéo nii Mbaye Niang mënul ni musul wax ni rapport am na parce que vidéo ba da koy c'est pas des montage c'est pas des trucages alors léegi ces éléments à décharge yooyu bu ñu la nee doo ko utiliser mais yow dañ la bëgg condamner léegi nag dès lors day nekk une bataille politique et non juridique les avocats de la défense je leur tire mon chapeau parce que ils ont obtenu gain de cause parce que les droits de la défense en matière de justice sont sacrés loolu woy la mhm. béaba ci euh, juridisme les droits de la défense son sacrés défense même buy def dilatoire da nga koy jox ses droits bu mu mët sëkk parce que condamnation mhm. dafa war a doon ci ay bases yu leer donc les droits de la défense ont été respectés par la force des choses parce que euh, les avocats de la défense n'ont rien lâché dans la procédure mhm. léegi nag ñu xool fu wànnante di mujj ak ay gëtam parce que c'est renvoyé à un mois c'est-à-dire mhm. le 16 di d'ici là lu bëri dana xew après on verra parce que de mm-hmm. tout façon mm-hmm. munoo àtte nit ba pare ni ko doo teg benn lay ci table bi doo waxe vi doo joxe vidéo buy wane ni rapport am na mm-hmm. doo joxe vidéo buy wane ni amalu Ba nee na fi lii te Amadou Ba boobu doo ko woo te am Seck mi bind def ay affirmation wane ay document ci livre am uh-huh. kenn porté wu ko plainte duñ ko indi pour mu yokk ci xar mi karaw man mii sax buñ ma woon à témoin pour euh, euh, euh, dix millions de dollars yooyu ñu jaayee suñu or. te dugal ko dugal ko domaine agricole communautaire yu Itato. man mënul pour ñu wala ci loolu. waaw parce que loolu appel à témoin la rek. man je me porte à la disposition de la justice pour ça. pour nga indi preuve pour ça mm-hmm. parce que même dossier bi la Prodac la. kon kon tey jii élément de défense bu Ousmane Sonko am. Mm-hmm. dañ ko war a permettre mu exploiter ko mu teg ko ci table bi. su fekkee ni benn. benn euh, woykat boobu Ami Dieng xaw ma kii doon wax mag Maki Unku la nu mu tudd ci. Ami Collé Dieng Ami Collé mhm. bu fekkee ni benn audio mais ojo Ami Collé Dieng sax dafa sori man benn ojo lañ ma toppee woon euh, deux mille vingt et un daal may tëj ndegam ojo mën nañ ci toppee nit ci justice. Mhm. parce que maag vidéo war nañ ko mën a nangu nit produire ko. d'accord donc loolu loolu loolu c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est du freinage dañuy dañuy gàllankoor yoon entrave à la justice délit la ci magistrat gàllankoor yoon la ci ci olof donc délit d'entrave à la justice dafa am te loolu moo am tey. moom moo am tey. waaw d' accord est ce que da nga jàpp ni parce que ki nga xam ni moo defoon auteur di euh, rapport bi nga xam ni euh, moom mooy euh, Prodac gis nañ ñu dafa décédé est ce que jàppoo ni bu doon dund ba tey jii nii xëy na jafe-jafe yu ni am nii yëpp yëpp. non les les écritures restent les écritures restent bind bind day day day à l'homme Euh, bindu sëñ Tuubaa yi ba léegi mu ngi fi ñu koy jàng. effectivement bindu Age Malick ba léegi ñu ngi fi ñu ngi fi ñu fiy jàng. Mhm. alxuraan ak sunna bi ñu ko bindee ba léegi mu ngi fi. Mhm. ndegam bind nañ ko rek léegi ki ko bind amatul solo même bu doon tudd sax amul solo mbind ma la ñuy considéré kon loolu c' est pas un alibi. d' accord mhm. ci ci boobu la parce que journal bi ko rapporté woon à l' époque la voilà. moom la mu coo xam ne mooy c' est un mot suspect muy maanaam déggoo xam ni xëy na ay doute am na ci. effectivement ci nga xam ni waxoon na ko ci boobu la jamono. waaw man nag lu ma leerul du ma ci xuus parce que man man xaw moon sax ni kooku mhm. euh, deewam dañ ci am jiixi jaaxa mhm. vraiment loolu du lu ma du lu ma xam man ci lu ma xam daal lu ma leer journal dem koy fekk ci daal bi suñu dix pour cent or yooyu mhm. ñu am ko bu Sabodala supplémentaire te nguur gi jaay ko dugal ko Prodac mu seey loolu moom mën naa cee wax boo ci laajee firnde mën naa la ko indil mais koo xam ni kenn xamul nu mu dee man vraiment mënu ma sax commentaire. d' accord xanaa di ko ñaanal yàlla. mais mais li li yëpp am li yëpp am tey jii Clédor parce que hmm. événement mars yi bi mu àggee fenn fi suñu kilifa diine yi Afrique effectivement ñoom ñoo génnoon wax après mbir mi daal daal